duñ ko nangu nag ah xëy na cun nangu ko moom kii moom nee na ndax seetaan film yooyu nga xam ne góor ak jigéen ñaari tubaab yi saay-saay ñuy séyante ndax seetaan ko dagan na xaraam na daganul xaraam mooy tere xaraam mooy tere tere nanu ko ndax xool lu yiwa di baaxul xool awra baaxul kon tubaab bu jigéen bi ak bu góor bi nga ubbi wala nga jënd kaset bi teg ko di seetaan nañuy séyantee mooy seen njaalo loola xat sariya dàq na ko tere na ab jullit du xool lu bon euh, wa nasaru ilal xaraami dañ koy tere wa nazaru ilal ajnabi bi dañ koy tere ndem jàmbur bu jigéen lañ la wax ne la bu ko xool jigéen moytul xool jigéen rek kon ku la xool xawra awra ku la ko dagal la qul lil muminina yaxudu min absaari waxal jullit yu góor yi bu ñu xoolee te jullit yu góor yi bu ñu xool jullit yu jigéen yi wax jullit bu jigéen bul xool jullit bu góor pour am ca bànneex nga xool ñaar ñu summeeku def yaramu neen di di njaalo nga di leen seetaan charia tere na loolu ab jullit du ko seetaan bu la neexee na nga topp sa bakkan topp yàllaa fi ne ak topp sa bakkan yàlla wax na ci alquran ne am na ñoo xam ne du ma seen yàlla seen bànneexu bakkanay seen yàlla la seen bakkan bëgg la nuy def kon mooy kooku seetaan porno affaire am la waaye charia dàq na ko daganul julli du ko seetaan voilà loolu mooy laaj boobu.